aousubillahi mina seytaan rajimi bisimilahi rahmaani rahimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonentam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu waaye mën a nekk ñëw leen di jaar di ñaanal jàmm ak gudd fan wér di ko sàkk ci yéen rawatina yéen ñi abonné ci Daaru Salaam si Sibaaw Daaru Salaam Sibaaw dana seet wala seet la wax la sarax wala wax la càngaay foo maa dem def jikko fa nga dem def jikko fa tey den andi secret fii saar wa ñu wax tabbat yadaa abii lahab wa tabba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasaba sayaslaa naaran zaata lahabin wa imra'atuhu hammaalatal hatabi fii jiidihaa hablun fii jiidihaa hablun min masadin baat bi nag day dox ci lu bëree bëree bëri bëri baat bi dana dox ci toj liggéey baat bi dana dox ci bayre dana dox ci ubbeeku dana dox ci rab kon baat la boo xamante ne nii baat bu bari solo la am njëriñ lool nag njëriñ li moom foo ko takk rek romb na ko ba tax na te yomb na mu ngi nii lii rek mooy jëmmi baat bi fii jii dixaa moom lii rek la gis nga ko ni ba nga bindee basama la fii fii jii baat baa ngi nii kon baat bi yow mi nga xam dañ laa jàpp nga liggéey sa yaram bind ko fanweeri yoon ak juróom 35 bi nga def ko ci ndox nga boole ko ak nga fay ci juróom ñaari xali safara nga sangoo ko ñetti fan kooku baax na ci liggéey baax na ci cat fii jii daxa ngay bind fanweeri yoon ak juróom nga def ko ci ndox fay ci juróom-ñaari xale safara nga sangoo ko kooku dana liggéey dana dindi cat fii jii daxa nga bind ko 111 bii nga ko sangoo juróom-ñaari fan boole ko parfum bu neex dana ubbi nit dana musal tamit boole neexee bii tamit am na beneen yoon da ngay wut 111 xob bu nekk nga bind ci fii jiidiha nga def ko ci ndox bindaat fii jiidiha 111 da ngay bind fii jiidiha 111 wutaat 100 xobi déem xob bu nekk nga bind ci fii jiidiha moom xobi déem yi tamit day mat 111 nga def ko ci ndox nga de ko sangoo juróom-ñaari fan nga koy sangoo heure boo sangoo nag dangay ngay wér di fii jiidiha 111 kii day ubbi nit moom it ku tëju def ko lu gaaw la ci ubbi nit heure boo sangoo ba toog rek da ngay daat fii jiidiha cent onze moom rawaanam bi dafa gaaw ci wàllu ci lool ci ubbi yow mi nga xam da ngaa amee rab yow mi nga xam da ngaa yow mi nga xam da rab bindal mm, fii jiidixa ngay bind quarante bi ñeent fukki yoon ak benn yow mi nga xam da ngaa amee rab bindal fii jiidixa quarante ba nga ko bindee quarante ba pare nag da nga koy def téere nga lem ko boo ko lemee ba pare nag da ngay wut reenu daqaar reenu daqaar ngay wut nga lemaale ko ci nga ëw ko takk ko kooku day dox ci wàllu rab ci boo yore rab tam suñu borom rab bu mën naa dem ba saafara rab nag mënu naqare faj la boo toppee tegtal yi rek ci kàttan suñu borom bu dana dem ba tàggoo yow boo defee loolu tamit jii defe nga def ko téere nga wut reenu daqaar ngay wut nga lem ko awale ko nga takk ko kooku tamit baax na ci rap kon fii ji daa bari bi li ci mën a bari na lool maanaam daanaka sax tey lii taxal ma ni ko dama doon fàttaliwaale rek waaye lii ma tax ma ni ko rab jaar kon fii ji daa mi ngi noonu dana dox ci wàllutul liggéey ak cat dana dox ci wàllu ubbi doomu aadama dana dox ci wàllu rab benn baat nag bu dee dox ci lool waaye nag lu ci mën a am noonu da ngay jaar ci sec code bi ñu la jox ndax lépp code la boo defee 111 bii da nga gis code bi li waaye boo dee ko ëppee tamit doo gis code bi 41 bi boo ko defee da nga gis code bi waaye boo ko ëppee wala nga yées ko tamit doo gis code bi 35 ji ba xàmmee mat ci yow 111 bi tamit na mat ci yow 41 bi tamit la ci wax lépp na mat ci yow ndax lépp code la boo wàccee code bi rek dugg nga ci beneen bokkul ak bi ñu la wax kon suy jiite xaar ngoogu 35 yi dana toj liggéey dana dindi cat 111 bi boo ko bindee ci xob bi dem bindaat 111 boole ko ci ndox. sangoo ko juróom-ñaari fan heure boo sangoo pare nga toog nga wér di fii jiid ha cent onze di dana ubbi nit quarante et un bi yow amee rab bind ko fi ñeent fukki ak benn nga lem ko ba mu nga def ko téere nga def boole ci reenu daqaar nga ëwlu ko takk sa ndigg kooku tamit baax na ci rab kon fii di ha daal njëriñ li bari na lool foo ko mën takk romb na ko kon ñoo ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm ak gudd di ko sàkku ci yéen nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh